wara a wara wala def affaire ñoo doon. waaw bi loolu doy na waar de. loolu daal xew ci fi nga xamante ni si mooy. mooy derkale mhm. ci ñaari imaam yoo xam ne li ci gën mhm. ay yi kenn ki mi ngi toll ci ans. Mhm. ans. ñu jël imam bi dóor ko dóor yoo xam tribunal lañ mujjee. daa loolu est-ce que du vieux. eh abi man. ko fee laay jullee ci àjjuma. du du du vieux. vieux du def loolu. vieux man ci suba. jaral na la ah comme foofu imaam yi dañuy xeex. waaw mais ñoom bu ñu xeexee tamit kan moo leen di àtte man loolu bëgg naa ko xam de loolooy question bi parce que li ci doy mooy. imaam mhm. yi euh, benn imaam bi nga xamante ni si moom lan moom lan dóor ba blessé ko. Mhm. mu tudd Ablaye Ablaye Gueye. Mhm. ñaar ñi nga xamante ni si ñoo ko ñoo ko dóor kenn ki mi ngi euh, tudd Mouhamed Malick Ba kenn ki mi ngi tudd Ahmed Tidiane Ndiaye. Euh, nee nan imam bi dafa dafa warona tabax ben euh école coranique ci bir juma bi. Mm-hmm. mais nenañ mm-hmm. euh manam xaalis bi bi ko don jox. Mm-hmm. contribution yi gaay defal yalla yi. manam kessu jakka bi voilà nenañ mom ci la don ci la don dundu ah, ah mais bu beure ci ay bëtam est ce que est ce que du ci compte. waru cee compte dara man de buron man la ma compte. ci nenañ ci la don dundu mu ñew mu ñew fajar gi. hmm wara jité ma sey ngi nag. nak jar na reetaan nag. doori fajar. doo faj gars yi na ko doo doo taxaw. doo taxaw doo taxaw. kon instant bi imam bi fi mu ne dóor nañ ko bu muy bëgg a dee nii. certificat médical 21 jours la am. ndeysaan eh, eh, eh, ay yow eh dóor yooyu garaaw na de. dóor mais nag xam nga. xam nga mais xam nga ne xam nga lan mooy problème bi euh, jeune ak. Euh, euh, pa duñu benn duñu benn. jeune ñaar ñaar ci kenn. ñaar ñoo jàpp mais nag mais nag. pa imam bi nag vraiment li mu def dafa rëy. parce que keesu jàkka keesu jàkka. mais est-ce que est-ce que tamit keesu jàkka jooju moom laal na ko. Ah, surtout loolu parce que ñoom dañu jàpp ni. Mhm. moom dafa tàmbalee noos tàmbalee. daa commencé stable daal mhm. waaw ñu ne ñu ne ci xaalisu jàkka ji la koy laalee mais jàpp naa ni. Mhm. même bu doon même bu doon dafa lekk xaalisu jàkka ji yëpp. nekkul ay dóor lañ ko war a fajee. lu toll ni jàkka. lieu de culte. Mm-hmm. xamni ni nit ñi buñ jaaxlee amana fa lañ jëm buñ démé ba ñuy démanté tribunal mm-hmm. ba ñu ci tej ay ay ay ay 6 ay 6 mois mm-hmm. xam nga ay 3 mois yooyu aussi nit ñi dañuy dañuy am dut bu ëllëgé buñ amé ay jafé jafé fan lañ ko wara waxé ndax bu dé ñi nga ñi la wara atté àtte la ñom ñoy ñom ñoy xeex loolu aussi fay da fay doy wax ah mais tamit parfois nak il faut am ciow am nit ah, ñu ngi nii ñun fii mais d'accord coow des de dafa war a am. Eh. kuy dugg. ñu koy doxante nii. man loolu laa bëgg. waaw mais bëgg fu ma ne coow di fa am xeet mais nag fi mu amee nii soxla wuñ ko fa. waaw loolu tamit dëgg la loolu tamit néegu yàlla toll néegu yàlla. Euh, néegu yàlla la. Mm-hmm. nit ñi dañ fay ñëw di jaamu yàlla. te ñañ fay fekk si. war mm-hmm. nekk ay référence mm-hmm. ndax euh, buñ nee imaam rek. yow ñëpp bàyyi nañ la xel. ndax ñëpp a ngi ñëw di jël référence. dëgg la kon ñooñu bu ñu demee ba bay xeex. ah ñooñ seen imaam war nañ koo xoolaat. waaw ndax ah mais ah ku ñu ku ñu bett. ku ñu bett dóor la kat da fay. non non ñoom ñëpp ñoo si bokk li ci li ci gën a doy waar sax mooy. ñaari jeune Mm-hmm. xam nga jàkka dañ ci doon wax naan dañ ciy soxla ay jeunes. Mm-hmm. ngir ñuy mën di dimbali mag ñi. ci yenn yi. Mm-hmm. ba tax na yenn sape yi sax dañ ciy taamu ay jeunes yi nekk ci ta sape ci kanam. ak yooyu mais bu ñu demee ba ay jeunes yu nga xamante ni si tey ñoom ñoo waroon a gérer la protection de la mosquée. ñoom ñoo dem bay violenté. bay violenté waaw di di euh, imam bi. dóor ko dóor te jàkka jàkka dafa am règlement. parce que ñoom ñoom tey jàkka ji am na règlement yoo xam ni. Mhm. bu nekkee ki nga xam ni moom moo jiite nekk mag. Mhm. te jaarul yoon. Mhm. ñoom waruñu woon tëb ñu ñëw bàyyi ba fajar gi euh, heure bu neex boobu. <laughs> ñu jàpp ko ko fajar de am na lu may fàttali bi damay bàyyi ba après ba dog ko. <laughs> loolu de xam nga la la may fàttali. Mm. temps yi ñuy def CM2. quatre opération fajar. loolu la ma loolu la ma jox nag man am gën a danse boobu. Mm, man moom loolu la ma jox ay lañu ma ci wan. mais am problème garaaw door ci oh, a dee mu caam bëgg naa la suturaal mais ko. bàyyi nga ma ko bëgg naa ko suturaal ko jàpp si rek. ah suturaal ko mais mais man jàpp naa ni euh, ñoom euh, ñaar ñi nga xam ni dañoo jàpp ki nga xam ne mooy imaam bi ki nga xam ne imaam la. Mm-hmm. tey kooku mag la. dëgg la euh, nekk na benn kilifa ci ñoom. ndax mu mm-hmm. seen mag. di seen papa. wala muy seen nijaay. ñoom waroon nañ ko jox benn cër boo xamante ne donte def na lu dul yoon. waruñu woon ñëw automatiquement ñu dal ci kawam di ko dóor comme ça. Euh, waroon nañoo jaar fi nga xam ne fi lañ war a jaar. ba ñoom li nga xam ni bëggoon nañ ko te amuñu ko. Mhm. su boobaa nag euh, mën naa ne mën nañ ko mën nañ ko dóor mais dóor sax ëpp na nag. non non non moom ak lu mënti xew. Mhm. warta am dóor mhm. parce que xam nga. Euh, jàkka mhm. wala jumaa mhm. dafay am imaam am naayim am ñi nga xamante ni ñooy gérer. mais sama doom baay bi dafa jàng. non kenn ku ne yaa ngi yaa ngi gérer li war a gérer donc. Mhm. bu fekkente ni si am na loo xamante ni si daf dañ ko yow danga nga jàpp rek. daf ko def. te waru koo def. mais jarul dóor. da di woote réunion d'urgence ci ci jumaa bi. xam nga les charges ñëw ngeen waxtaane ko. moom bu fekkente ni si dafay fay bu dee dëgg la. mu génn xaalis mu fay. bu fekkente ni si dëgg. te mhm. wóolootuñ ko. ñu jël mhm. xaalis bi ci moom jox ko keneen. ah vraiment lool yomb na ko wax. mais moo gën mais nag mais nag gis nga cas bi nga indi ni masse. Mhm. nekkul c'est la première fois ci jàkka yooyu lañuy doorantee dóorantee ak a xeex. ndax souvent da ngay gis euh, des fois nga gis benn vidéo ñu ni imam ba jàppante na ci. ju ci biir jumaa ji wala ci biir mhm. jàkka ji mhm. jàppante naa jullikat yi wala mhm. jàppante naag ñiy nodd loolu dafa bari torop ci ci jàkka yi jàkka yi dañuy jàppante sax ci maay jiite ak doo jiite maa war a jiite ak waroo jiite ah. dañ ciy jàppante mais est-ce tamit nekkul euh, peut-être li nga xamante ni moom lañ leen di jox ku ci nekk bañ koo yéene sa morom waaw surtout loolu day am rawatina xam nga ci kori korite gi passé ah. ñoo ngi déggoon imaam yi doon nax naan. waaw mag yi daan joxe ndéwénal. daan joxe waaw ah, ah. moo tax. mais tamit est-ce que nekkul tamit ñooñu noonu ñoom loolu lañ doon xëcc bëgg a jëlee foofu imam boobu. Mhm. pour toog place am di am ci ndéwénal yi wala muy am ci neexali. tabaski baa ngi ñëw tamit. tabaski baa ngi ñëw de. te bu ne góor bu ne yaa ngi koy xalaat te ñooñu ay jeune lañ te yor nañ ay yor nañ ay soxna war mm-hmm. a war a a joxe xaru tabaski xotti xartum comme ni mu ko doon defee fii xam nga xam nga lan mooy problème <laughs> uh-huh. euh, yaakaar munoo nekk yow nga ni yow euh, euh, comment dirais-je mm-hmm. da nekk ci ci ci àdduna mm-hmm. ngay dund nga am ay njaboot am am am soxna et ngay nga nekk imam ba pare jël affaire boobu noonu bëgg ko bëgg bëgg ko yaakaar ci ci ci affaire imam maanaam nga jël sa xaru tabaski. yaakaar ko ci yaakaar ko foofu. man hmm. man loolu laa mënta loolu laa mënta concevoir man dama jàpp ni imam. Hmm. bu fekkente ni dem nga ba ñu nommé la li nga xamante ni moo di. imam ci yow yéen euh, yi ba tax ñu nommé te sax dafa am ci lenn looy jàpp sax. lu tax ñu war laa mën a nommer imam mais koo xamante ni xëyul gontul et xam nga euh, amul amul benn amul benn responsabilité. ci yoonu yoonu l'islam moom. Mhm. ngir nga don ay imam ak don lenen ak lepp lo meun ci don da nga mhm. war di liggéey parce que voilà référence bi moy sallalahu alayhi wasallam mhm. té mom meunon na tok lepp di dox mhm. mais téwul dafa amone liggéey bu muy liggéey deug la ay deug donc euh meuno jël té ñi ngay ñiy indi ci jakk bi da nga nan len def ta yalla tax deug la donc def ta yalla tax bobu war ta indi xex war ta indi xuloo mais aussi ñi nga xamni dañuy indi ci juma bi wala ci jakk bi li ñuy indi ngir juma bi nan ko def ci jumaa bi. dëgg la liñ lay jox yow. yéene la ko may la ko. Mm-hmm. ñu jox la ko loolu yow yaa ko moom. mais li nga xamante ni si jàkk bi moo ko tax a jóg. Mm-hmm. nañ ko indi ci jàkk bi c'est-à-dire. Ah, problème mooy bu kenn ku ne defee li nga war a def lu na dem mu war a dem. Mm-hmm. coow du am. déedéet mais bu loolu amul nag après mooy indi yenn. mooy indi yenn euh, xeex yeeg yenn comportement yi nga xamante ni si. su ko dañuy dem ba commencé sax di eenalante ñoom. di seen biir voilà imaam yi loolu baaxul. ndax mhm. comme foofu la moom millier la boo xam ne vraiment mhm. milieu boo xam ne nit ñi dañ ci euh, kii dañ fay jëlee lu baax dafay jaamu yàlla xam nga yow mhm. tey yow imaam bi ya fa imaam ya fa nekk laay wax tey bu doomu aadama yi ñëwee yaa leen ni yee ci àdduna xamal leen lan mooy lislaam xam nga teg leen ci yoon bu baax am na yoo xam ne ñoom du seen cër dëgg la du seen cër kon imaam yi war nañuy xoolaat bu baax a baax ñoom tamit mhm. euh, ni ñuy nekkee ci jumaa yi wala ni ñuy nekkee si jàkka yi. dëgg la mais fekkente ne tamit imaam imaam yu jigéen am na est du que duñ déposé non man moom xam nga li ma lay wax mooy man suba euh, dekkale laay jullee ji àjjuma ndax ba xam ma xoolaat ba xam loolu dina fa amaat ma jéem loolu kay mënut a fajar ak xeexu naaj bu tàng ma. Eh, loolu dina la déedéet yow xanaa xamoo sarax comme eh, ça ñi indi kii comme genre ni si si si jumaa yi. ajuma lañ ko gën a mën a indi xanaa xamoo. waaw loolu am na loolu borom oto yu toor yoo xam ne tey ñëw nañ te seen nga leen. ñu yegg ci kees gi. xam nga da ngay dañ kumpa nga xool ba xam lañ fa dugal. léegi nag bu duunee nga sànq non man moom dinañ la ci ajuma ah. diis na de moom ajuma moom. ajuma diis na de surtout xeex sax naaj bu tàng <laughs> loolu doy na waar maas nag yaa fi indi lu rëy a nag. <laughs> imaam yi xeex man imaam yi xeex moom nag. ah, ah vraiment man bëggoon naa ko loolu loolu lañ fi gis euh, loolu lañ fi gis yàlla yàlla baax na. Ah. ku nekk ak fi nga xamante ni foofu la sa foofu la sa xel toll. man xam nga la bëgg fi mu nekk nii. Mm. ñu ñu ñu ñu ñëw ci suñu beneen cas bi. Mm. li nga xam naa instant yi fi nga toog nekkatoo à l'aise nekk ni imaam yi. dëgg la de mais fexe leen xool rek ni ngeen mën a waxtaan waxtaanee. nuñ ko arrangé daal voilà mhm. man dinaa dem jubóole euh, leen. man dinaa dem. jéem leen xool ñoom. ma <laughs> boole leen ñu toog ma indi leen ci saal bi ñu waxtaan. bu mm. ko defee imaamu jeunes yi. Mm. bàyyi imaamu mm, paa yi dóor te xam ne paa yi leen jox cër ay mag lañ. balaa balaa balaa balaa loolu nañu nañu jël euh, pause. Mhm. Euh, ginnaaw bàkk bi ñu indi leneen li nga xamante ni moo di deuxième cas bi.